waaw ci wolof waaw euh, donc euh, li ñu fi indi tey euh, mooy dañu gis ni Afrique dafa jànkonteeg jafe-jafe boo xam ni maanaam ndaw ñi ñu ci bari amuñu liggéey mais aussi boo xalaatee nga gis ne fi mu nekk ni suñu agriculture mbay mi maanaam dundalul dundalul askan wi fi nekk parce que ñun suñu xalaat mooy euh, naka la ñu mën a fexe ba nga xam ni dinañ béy li ñuy dundee dinañ dundee li ñuy béy ah. kon na Afrique dina am moom euh, egg ci euh, foo xam ni fii moom mooy mooy dundal boppam wala bokk li ci ëpp même bu ñu doon jéegaane xëy na ay ay lu tuuti lay doon waaye li ci ëpp waa Afrique ñoo koy ñoo koy ñoo koy béyal seen bopp ah, ñoo koy transformeel seen bopp parce que daf ci am solo. maanaam li ñuy woowee valeur ajoutée boo béyee ba pare au lieu que nga jaay directement li nga béy mais nga fexe ba ñu ajouté ci benn valeur fii ci biir euh, Afrique ci biir Sénégal maanaam donc li ñuy wax euh, euh, approche chaîne de valeur Euh, di dinga dinga nga di nga di nga béy mais di nga ko transformer di nga ko jaay fii ci biir Afrique ak xëy na am loo xam ne mun nañ ko ki génne donc xalaat yooyu daal ñoo taxoon ñu daal di def benn gëstu euh, bokk na ci fukki réew ak benn ci Afrique ak Sénégal ci la bokk euh, bon moom lañ doon wane tey Euh, résultat yi lan la ñuy jëlee ci gëstu boobu ñu ànd ko présenté ko ñu ngi rafetlu lool euh, présence su ministère de la jeunesse à travers euh, donc le directeur général du DAC domaine agricole communautaire yi ñu ngi rafetlu waa waa taxawaayu waa ministère de la femme ñu ngi rafetlu tamit taxawaayu surtout nag ñi nga xam ni ñoo yore TIC yi parce que nouvelle technologie bi moom xale yi dañ ci gën a sawar dafa gën a am njëriñ faw ñu dugal ko ci biir kii donc ñu ngi leen di ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jaajëfal euh, waa USAID waa FAO yooyu ak yéen tamit euh, ñi nga xam ni yéen a yore euh, presse bi ñu nekk ci média yi. da nga da ngeen di joué benn rôle boo xam ni tubaab fakal bu am solo la boo xam ni bu ñu ñu buggee wéyal ay mbir nga xam ni ni xale yi dinañ ci gën a gis seen bopp. Euh, il faut que yéen tamit ngeen jàpp ci bu baax a baax. maa ngi tudd Abdoul Karim Guèye nekk directeur national bu AIFR.